bu xew-xew bu mag bi amee si sunu wayjur sunu xalifa sunu sëriñ di magub lislaam ci Sénégal ak ci umma bi yëpp lu ko mënoon démb bu ngeen koy denc waroon naa ko teewee ndax àqu wayjur ak àqu soppe taxawaayam ak tolluwaayam ci l'islam, ci biir Sénégal kilifa bu yaatu na fi kilifa bu itam yéene ci njabootam am yéene ci réew mi nekkoon ku baax loolu nag ndax yi ma a am ak dama jàngat affection ak yéene bu mu ci man yal na ko waaw moo tax daal xam na ne ñoo bokk li xew euh, ndax wayjur bi ñoo ko bokk sëriñ bi ñoo ko bokk baay bi ñoo ko bokk kon bokk nañu tiis bi tam waaye di santaat suñu borom bu baax a baax